أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين gannaaw bu ñu sant yàlla julli si neen tomb tedd bi seydina muhammad rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ndekk leen ñëpp benn yoon di leen wàcc seen wàccuwaay di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh tey nag ñu ñëwaat si darsu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci leeral yenn si mbir yi nga xamante ni baaxoon na ko di ko def gannaaw bu ñu jullee korite ba pare wala ñu julli tabaski bokk na ci lam daan def moom yonent bi sallallahu dina daan waar nit ñi dina laan deen digal di leen dénk waaye ci biir dénk googu moom yonent bi sallallahu alayhi daan toog ba suñu yàgg sax yónni ab armée ngir ñi am lu ñu def wala mu digle ay mbir yu nga xamante ni rek ngir ñi def ko gannaaw loolu nag mu may ndigal ñëpp daal di yéwee ko dem seen kër yi mu ne xaddasana saxeet bun abi mariam qaala xaddasana muhammad bun jaxfar qaala axbarani saydu bun aslam an ayad bun abdullah bun abi sarx an abi saxeet alqudri qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxruju yowma alfitri wal adha ila almusalla fa awalu cheyin yabda'u bihi alsalaat summa yansarif fa yaquumu muqaabila naasi wannaasu juluusun ala sufufihim fa yaisuhum wa yuusihim wa yamuruhum fa in kaana yuridu an yaqtaa baxsan qatahu aw yamuru bi cheyin amara bihi summa yansarif dana jëleen yi saad bun abis mariam mu ne jële nañ ci muhammad bun jafar mu wax ne solo nañ ci saydi bun aslam ñu jëlee ci amaad ayaad bun abdullahi bun abi sarh jëlee si abi said al xudri mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na génn bisu julle korite wala julle tabaski jëm si jullekaay bi bu yeggaan nag li muy njëkk def moom yonent bi sallallahu alayhi wa mooy day julli nit ñi jiitalee ñaari rakk jàng ko jëxërat jàng ko sa kaw gannaaw lool nag yonent bi sallallahu dana jog jàkkaarlook nit ñi fekk booba nit ñëpp a ngi toog ci seen sàpp yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di leen waar daal di leen di dénk waaye daal di leen di diggal si biir digal googu moom yonent bi sallallahu bu gisee ne war naa yónnee ab armée ñi am def benn lu war a dox moom yonent bi sallallahu dana leen ko wax wala mu gis lu nga xamante ni daf ko war a digle moom yonent bi sallallahu dana ko digle gannaaw loolu nag mu jog yéwi nañu kenn ku nekk dem sa kër bu nekkee tabaski la moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan yóbbu ay xaram si julleekaay bi nga xam ne ni bu yeggee bu njullee ba pare ba waare moom yonent bi sallallahu alayhi dara rey ay xaram nga xamante ni képp ku dem rek danga nga mënati rey sa ndax képp ku nga xamante ni njëkk ngay rey imaam rek yow eh, amoo tabaski waaye yàpp nga am kon bu nekkee ne li nga xamante ni moo di jullee tabaski moom noonu daan def kon liñ ci jàngee rek mooy ne bis boobu nga xamante ni moo di jullee korite sopp nañ si imam bi gannaaw bu mu jiitee nit ñi ba pare mu daal waar nit ñi nag fàttali leen di leen digal di leen tere bu gisee li nga xamante ni war na koy digle mu daal di koy digle ndax kat wa ma ala rasul ilal balaaxu mubiin dara warut ab te rek mooy ku ñu yonni mooy ku war a jotal mooy ku ñu jiital rek lu dul mu jotal li nga xamante ni moom lañ ko digle ngir moom lañ ko digal ngir mu daal di koy jotal kon yonent bi salaa salaam dana daan digal nit ñi daana leen daan waar daana leen daan tamit dimbale si suur yu mel nii nga xamante ni moo di korite ak tabaski kon ñu ngi ñaan yàlla yenn yàlla defal ni jàmm ma ñu dégg ak topp bi jaay nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu